tamit suñu rakk jooju nga xam moom tamit bilu ah dafa ñàkk yaay lu metti la lu tiis la waaye da ngay muñ rek léegi yow euh, micro bi yaa koy yor problème dafa am ci réew mi. mag ay wax yu sew la. <laughs> léegi problème bi am ci réew mi comme temps comme amuñu temps comme amuñu temps bu baax. Mm-hmm. léegi dama bëgg ñu gérer problème bi. Mm-hmm. parce que Awa gay yaag Ami Collé yéen a ñuy àtte Ami Collé élément bi nga am heure bu waree dugg nag ñu ko wax. d'accord. Awa Gaye heure bu ñu waree dugal Fatou Café Touba à show nag ñu ko wax parce que ñun dañoo ne ci problème bu ñu war a lijjanti. parce que ñi ngeen gis ñu toog nii. ñooy président équipe bu championnat yi. seen supporters yi ñii ñu leen présider. tey ambiance bu amee ci réew mi ba stade yi neex ba xumb. ñi a tax. tey bu ñuy inciter nit ñi nañ dem stade seetaani. ñu neexal championnat bi wala neexal li nga xam ni moom mooy. du quartier wala les nawetaan ñi ya tax ñu dem ba Sénégal wala dem coupe du monde tos ñu xool ñii même ñi yónni xale tant xale yónni xale mu ne la mooy nag daw ma président ne ñi ah ah ah, ah, ah, ah y'a problème tos y'a problème y'a problème non non président la ñu woo ne ko dañoo bëgg a dem ay waxi oh, oh. dama comme temps mu sañ ba jekk nga ko mu ne la léegi nag ñoom ñoo ñuy leeral ndax woo nañ leen. Mm-hmm. wala ñu leen. Mm-hmm. wala ñoom naka la ñu def ba ñu xam ni ñoom dañuy toog duñ mujjee dem Qatar. Mm-hmm. micro baa ngi noonu. Ah, ah, ah, parce que ñoom xam nañ ne duñu dem parce que trente personne duñu subvention la ñoom bokkuñ ci nañ ñu leeral. Eh. <laughs> salaamaaleykum

donc je pense que biñ ko mooy créé ba léegi gis nañu violence bi wàññeeku na. Mhm. et puis une supporter yi ñu ngi mooy parce que loolu moo est son objectif. Mhm. moom mooy tey euh, Pikine buy dem muy Géejawaay moi président Géejawaay bi taxaw xaar ko recevoir supporter. yi ba comme ba nga xam ne mooy coow dafay jeex ci ci ci championnat Sénégal. je pense que loolu moo est suñu suñu objectif donc nag nit boîte dem bon moment peut-être c'est objectifs moom moi a yokku. Mhm. mooy xool naka ngay mooy demee booy affaire donc je pense que ci logique boobu lañ nekk mais dal loolu moy suñu suñu bi ñun ñun collectif des présidents secrétaires des clubs. Euh, lan moy problème bi comme temps amul euh, lan moy problème bi dañ leen a gis ci site internet yeeg partout ngeen génn di wax lan moy problème bi. donc je pense que y' a pas de problème hein, amul problème parce que dañu japp juste que ñun euh, ñoy nekk ak ñoy nekk ak suñu équipe bi à chaque fois. donc moy neuf mois dañu nekk suñu équipe bi. di and ak ñom fu nekk ñuy and ak ñom donc moy tay euh, on n'a pas de problème a un problème at at à, pour du monde wala leneen leneen. Mhm. juste que non non non problème bi ñu yen. nous sommes ñu ñu dem leen déranger. non non ñom dañu bëgg dem avant. wa yeen ki mo leen déranger yeen dañ ni euh wa wa lebugi ñu dem yeen loolu leen déranger. loolu ñu di wax ñun mënuñu déranger ah. mënuñu mënuñu mënuñu déranger c'est juste dañuy wax dañuy rappeler

le collectif des clubs de comme supporters du Sénégal nous sommes à chaque fois ci terrain nous équipe à chaque fois nous ñu foot local aussi. Nous xam nga euh, euh, non non nous Sénégal mm-hmm. you know euh, choose mm-hmm. personnellement. Euh, yow once nga ne sénégalais nga rek bu ñu tànnee sa morom pour mu dem it's ok yow danga ko war a support nga ànd ak léegi pour man lépp benn la daal léegi yow seen problème exactly amuñu benn problème ah. amuñu kon ngeen demul is ok da ngeen di def fii seen ambiance amuñu benn problème kon loolu ni kaas. non c'est juste dañuy dañuy dañuy mooy mooy promouvoir foot local bi encore une fois li tax ñu ñu sos collectif bi moom mooy wàññi violence bi.

ñu ñëw tey ale Casa taxaw na tey lébu gi ñëw na suba AS day ñëw NGB ñëw est ce que bu ñu continuer noonu après dinañ ci génn ñun li ñuy kaas mooy douzième gaynde douzième gaynde Sénégal gi yëpp la ñuy ñu fédération bi réorganisé douzième gaynde club yëpp sànni seen bopp quota bu ñu jox jox ko douzième gaynde Sénégal ba képp kuy membre supporter nga am fa membre mhm. am fa représentant bu ñu dee jox quota ñu jox ko ñooñu bu dem dee am ñooñu dem foofu mais amuñ benn problème ak demu lébu gi ak demu keneen a keneen supporter équipe. championnat. non je que te passé na supporteru équipe bu ay nawet ak yooyu. parce que ambiance bi. ñun dañoo dem ba xool nit ñoom dañoo bokk ci ambiance réew mi. Mm-hmm. est-ce que du noonu lañ leen seppee ba jël leen yóbbu leen est-ce que ñii supporter ñaari tali Grand Dakar wala ñi nga xam ne ñoom ñoo supporter ay est-ce que am nañ euh, engouement. li ah, coow li nga xam ne moom la ay sëñ. waaw loolu ku ko wax rek ku wax loolu dafa fekk demoo championnat yi yéen seen activité est-ce que gars yi ñu ngi koy ràññee bu baax a baax a baax mm. waaw dama ni la boo dee dem chaque match tey NGB moom waxatuñ ko parce que amatuñ Demba Diop mais bu dee ambiance dong NGB def na ambiance lu ne ku xam Demba xam ñaar tal def na ko tey Pikine li mu wàññi stade Pikine chaque dimanche boo demee stade Pikine boo ñëw doo dugg si ambiance googu boo demee boo demee Mbour tamit noonu la waa stade de Mbour def. waaw mais tamit waaw lu ñu mën a wax lu ñu mën a wax lu waaye ñàkk xàmme ñàkk xàmme xam ne AS Lébu gi yëngal nañu. Mm-hmm. waa mais loolu wax waxatuñ si AS Lébu gi mu ngi yëngal comme AS Pikine nu mu yëngalee. NGB di koy nga stade mu di koy nga AS lépp gi mi ngi yëngal yëngal na xool nañ si yëngal boobu yaa ngi dégg woo nañ leen dama ne bu subaa yaa ngi dégg bu beneen équipe nawetaan jugee wane dooleem à Pikine ñu jël ko keneen tey Demba Diop pare xanaa kan moo leen dàqal supporter fii kusum noonu. NGB noonu parce que ñooñu amatuñu stade newetaanatuñu. tey lébu gi la tombé. léegi ak sélection a defaraat seen toogaay beneen yoon su national event amee dañuy alerter dañuy yi di état bi parce que lii bu ñu ko continuer nii day indi ay problème parce que bu ñu ñëwee tey ñu amuñu benn problème rek lébu gi dem comme ni nga wax lébu ay ay sénégalais lañ mm-hmm. ñun ñëpp nous sommes tous des sénégalais mm-hmm. te sénégal la dem supporter ji mm-hmm. kon keneen ku dem ku dem mais dañu bëgg ñu koy teg si yoon ñu organiser bu ko fee problème yu mel nii dootul amati mais am ngeen yaakaar ni dem mën na am à tout moment. non de non du question dem moo ñu fi du question dem rek mais yéen mais kon yéen mais kon yéen bi ngeen demee di kaas. Mm-hmm. lan moo nekkoon seen objectif u kaas lan moo nekkoon seen but. waaw léegi xaaral wax loolu moo tax moo tax. waaw salaamaaleykum. ñu ngi ragal ñun ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp. duñu ragal Mortal. <laughs> ayca salaamaaleykum Mortal c'est mon ami. ñu ngi leen ku ci nekk sa tur ak sa sant di remercier Abba di remercier collègues yi nga xamante ni ñoom la nekkal. di leen remercier aussi. parce que tamit comme ni ñu koy waxee.

ñun comme ni ñu koy waxee gérant ni ñu ko géré la ñu wax mooy tey jii nii xam ne ni lébu gi tey jii nii président Macky Sall moo doon def jokkoo Macky bi au niveau de Rufisque leen loolu lim leen jox quota noonu ñun dàq lool lu rafet la mais tey jii nii comme ni ñu koy waxee ñi nga xamante ni dañoo organiser wu yor mbooloo moo xamante ni day topp seen ginnaaw chaque jour que Dieu fait bu mas waree am ñun collectif bi ñuy waxtaan ci suñu biir bu nit war a dem recevoir exemple Pikine war a dem dem dem Sonacos wala ñu war a dem Linguère. Mhm. ñu ko ñu coordonné parce que dana am ay violence yi daan am tey jii nii dem nañ ba boole tey jii président stade de Mbour. Mhm. ak Wakam ci même groupe. Mhm. te te loolu noonu bu leen ko fàttee am na lu xewoon fii nii Demba Diop. kon tey ji ni yooyu noonu ay nit bu ñu koy def day baax ñu la ñuy bàyyi xel. parce que football bi kenn mënuñ cee génne. parce que ñu euh, yow nii tey jii ah yéen euh, fi ñu toll nii comme ñu ngi kaas ba heure bi tey lan moo nekk.

mais tey jii dañoo bëgg mu organiser ba nga xamante ni bu ñuy defati ñu boole ci ñi nga xamante est-ce que yéen en tant que ay citoyen en tant que ay patriote en tant que ay doomi réew mi est-ce que organisation bi heure bi ñuy waajalee ñun ñëpp war a boole xel yi manko dem wuti ndam li est-ce que heure bi ngeen waroon génn waaw wax nga wax ji manko boobu noonu la ñoom la foofu lañu ratee nag heure bi ngeen génn nii c'est euh, trop a def. na 2019 ak léegi du benn fan. mais Aba. depuis 2019 la waaw ñun xam nga mooy xam nga sànq yéen foo gën comprendre. d'Afrique bi jaar na fi yéen fa ngeen nekkoon. coupe mais comme ni ñu koy waxee saa su ne tey jii nii bëri na ñoo xamante ni président demoon na mais moom ba muy dem ci ay propres moyens la demee comprendre nga. mais tey jii nii pour bien de commune la ñuy wax commune boo xamante ni ñëpp dañ ciy bokk. ñun foofu la ñuy waxee. d'Afrique. waaw demoon Casa Sport comme ni Allez Casa leen woon def euh, def yi nii. wala yéen bi ñu yóbbu moo leen déranger. wala non non du cas ñun ñun bi ñu dalee wax du affaire. ñun ñun ñun ñun ñun frère. ñun frère ñun ñun frère ñun frère comme ni ñu koy waxee. ñun frère lu ñuy wax du affaire ay ASC Lebougui yi. Ah. comme ni ñu koy waxee tey Allez Casa boobu noonu tey jii ñun lu ñuy wax mooy tey jii football bi dafa war a lépp douzième gaynde dafa war a nekk gis nga comme ni koy grand bi waxee. tey ñun AS Pikine exemple wala ñaari tali wala Sonacos wala Linguère wala Génération Foot ah tey match Sénégal bu xewee mën nañ def suñuy caravane sol suñuy moyo équipe dem supporter équipe nationale est-ce que loolu dina amati image yu équipe nationale on se dit la vérité on n'a rien contre Casasport mais ay moyens Casasport la ñu ñëwee nekk ma fi di defal promotion kenn Bécaye Mbaye kaas na fi nation la ñuy kiyee nii de Aba dem di supporter ji équipe nationale mm. du sol moyen Sénégal on n'a rien contre Casasport mais comme ni ñu koy waxee gars yi nañ fexe boole ben, mu nekk benn ñun ci loolu la coupe du monde ñun ñu dem ci ñu toog fii dañuy supporter Sénégal mais gars yi nañ ko organiser ba nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne dañuy nekk ci football bi 10 mois ou 12 mois ñu bàyyi ñu xel parce que mbooloo yi nekk suñu ginnaaw du mbooloo benn nit du mbooloo ñaar nit. en tout am na solo comme ñun ak yéen a fii toog xam naa ne dinañ def ay fan zone yu mag a mag a yu rëy yoo xam ni tamit bu ñu demul tamit dañ euh, sant euh, gërëm nañ bu baax a baax

Je remercier le président de la fédération, Augustin Senghor, le président de la Ligue professionnelle, le président de la Ligue amateur, Nous Sow. parce que nous sommes aussi Nous sommes ni nous sommes nous ñu ngi leen le président ni ni bon comme mais comme nous avons nous pour personnel comme sommes. nous nous bu ko passeport Qatar man nous mais dañuy benn benn biir commun mooy collectif dañu bëgg ñu yër lépp lu amate ñu woote collectif supporters yi fi nekk ñu toog ak ñoom ñu waxtaan ñoom ñu ne cinq lañ si am deux lañ si am lu ñu si am ñu jël ko ñu dem mais mhm. bëgguñu def personnellement nii nii di remercier ñëpp di remercier waa seetu bi di jaal duñu boobu lu waroon njëkkee dañu jaal dem suñu benn mbokk supporter buy géejawaay Baba Sow dafa décédé tey suba moo tax waa géejawaay ñëw ñu ngi koy jaale waa géejawaay yëpp di ko jaale ñëpp di remercier waat émission bàyyi jox mu la kontaane bu baax Ami Collé euh, fan la ànd ak yow waaye balaa ñuy dem fi ma bëgg a yónni am na man fi ma bëgg ñu ànd ba pare non non mais non non yaay wax fan la ñuy dem parce que man fi ma jëm mhm. bu fa jógee mhm. fi nga jëm yow fa lañ jëm man ci Cheikh laa jëm Cheikh produit Cheikh produit da ngaa bëgg non bu la neexee ñu dem fa nga jëm rek. dañuy dem ci Sidi. waaw dafay ñëw le vendredi juillet fii. Sidi meen bu jugee ci Sidi. kooku sama doom la bu ci dafa yëngal bu jugee ci Sidi. waaw au lieu ñu ñëwaat ci plateau bi dañuy dem. ndax li gën a am importance ki ñu gën a naw ci àdduna rek mooy ki nga xamante ni la mu indi da koy indi ngir askanam Cheikh nag ay projet naa leen jugewul fii ci Sénégal dafay dagg billet dem ba ca Dubaï. dem ba ci yeneen dëkk yi xool ferñeent yi nga xamante ni ay produits moom la soxla mu defar ay composants indi ko pour jox ko askan wi ñu mën a faju mën a jariñu day jaay ay produits yi nga xam moom mooy biir nee naa leen xale jigéen ñi sonn nañ ci takk geen ñëpp ay takk geen parce que li ko waral mooy ñëpp am xottu biir te ces produit ay produits yi nga xam moom lay defar pour biir du daw sa biir boo ko utiliser te sa biir boo ko utiliser ba pendant une semaine mënoo fexe ba doo gis li nga xam ne moom mooy résultat moom moom résultat moom dala koy assuré moom te amul effet secondaire amul dara lo xam dina la ko def te li gëna graw grave ñu ci bari sen ay produits ñi jaay pour biir bo setlo boko nané do gëna génn sa kër da ngay jël sa siis toog di xaar moom na do xaar doxil say soxla filaaleel sànneekul dafa lu la neex l'essentiel moy garab gi dina def li nga xam moom moy liggéeyam ci sa biir amna tamit yeneen ak yeneen yo xam da koy def mom Cheikh da ngeen koy contacter dem fi mu nekk bu ngeen fa démé inshallah rabbi gis na ni affiché nañ li mu ay lii di ay numéro téléphone am ci écran bi ngeen wo ko contacter ko Cheikh limi def du lolou kessé cheikh am na ay garabu bi mhm. cheikh am na garab yi nga xamante ni mooy góor ñi buñ koy faral di utiliser maanaam mhm. da ngeen koy contacter rek bu ngeen contacter cheikh incha allahu bi lépp lu ngeen aajowoo ci seen wàllu wér gu yaram lépp lu ngeen aajowoo lu jëm ci seen yaram bu ngeen contacté cheikh incha allah rabbi dina leen ko jox te am naa yaakaar ne boo leen ko joxee di ngeen ci jariñu ndax ay produit moom li ne li ne fànga kenn du ko jeex. tey macha allah ci cheikh produit. sama waa ji kenn du moom. cheikh ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu ngi jàpp ci euh, réew mi. waaw mu jàpp ci góor. jàpp ci jigéen jàpp nga ci réew mi aja euh, ñun nag dañu ànd ak femme femme bu am jom femme bu brave femme boo xam ni lépp rek loo xam dafa jëm ci ay xeeti baax baax yi nga xam ne moom lu ñu tiim nii toog ci kaw table bi moo ma ci doy Fatou Koundoul euh, Café Touba Show Fatou euh, Koundoul Fatou madame Koundoul ci li nga xamante ni mooy Café Touba Show guys nee na was bi nga xamante ni un litre cinq cinquante la mun ngeen koo amee si trois mille francs ba dafay def livraison Euh, partout si euh, biir euh, Dakar du Dakar rek foo mën ci nekk rek nga commandé Pape dina ñëw ak équipe am mu daal di la lu was bi nga xamante ni moo baax ci sa wérgu yaram pour seeni ay séminaire ay réunion ak ay pause café ay ngénte ay takk ay li nga xamante ni mooy brunch ay after work sax Fatou daf koy def mu ngeen koo call ci 77 459 93 11 Fatou Koundoul mu ne dafa ñëw pour noppal ñëpp du ay café Touba kese kese lay def du was kese lay def lépp loo xamante ni euh, danga koy jëfandikoo muy euh, côté amis bouche and stuff euh, Fatou daf koy def kon guys contact leen Fatou. le phénomène li ci gën neex avant mooy Fatou ay affaire dafa naturel. Mm-hmm. ma li ma goûté léegi naan ko naturel na trop. amul dara loo xam ne ni rek lu lu lu lu lu looy looy mm-hmm. naan di ko mm-hmm. sentir suukar bi ëppul. lépp naturel macha allah. waaw. ay jëm nga noonu

Aba mang lay fay. Mhm. maa ngi nuyu wa senegal du nuyu le monde entier di nuyu suma yaay du nuyu suma papa. du nuyu képp koo xam ne soppee si di jëm nga rek maa ngi lay jox suma loxo di la nuyu. di nuyu aussi suma suma suma du ma ne sax fan si club suma frère yi nga xam ni. ñoom fépp fu ma jógee rek gunge nañu ma. muy sii di famille maa ngi leen di nuyu bu baax. di nuyu Ami Collé di nuyu tamit Awa la Gambienne. maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax. di nuyu ki ma gën a sonal ci àdduna. Fante Toche non tout sax c'est demi las ah, mais mais non mais non mais sonal ma sama xarit la parce que mi ngi def lo xamné Sénégal gep ñu apprécier mok vraiment ma ngi leen nuyu bu baax aussi talibé, mam Aba. ma ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. maa ngi lay bégee sama waa ji yow naka nga def. ak eh, yan relation yan lijjanti nga def ba war a jouer cosaan fii vendredi nga xam ne cosaan dañ ñëwoon dañ koy tëj ba jouer coupe du monde ba pare. Hmm. waaw bon peut être waa cosaan ñoo gis euh, suma liggéey rafet ñu soxla ma pour ma ñëw tëgg fii. donc man ku ne xam na ni dama am relation yu rafet ak. Hmm. ay ibunduur njaga buuba. Hmm. Euh, famille bi dañ maa bëgg. raison pour laquelle ñu bari sax dañ naan man xanaa dama nekk prince art. ndax ci lépp lu ñu nekk rek dañu ma ci dugal donc gis nañu maa ngi suma yoon di liggéey ñu gis ni cosaan aussi ibbi nañ ko activités yi war nañu war na commencé mhm. ñu ne ma dañoo bëgg nga ñëw commencé ko rawatina nag dañ ko wax sa papa Youssou Ndour mu kontaan ci trop loolu neex ci sama xol trop trop parce que aloo sa papa Youssou Ndour moo moo bëgg nga ñëw jouer cosaan mhm. te fii ku ne xam na ni

léegi léegi bi ñuy ñëw ci buntu ci buntu bi léegi léegi léegi lañ jaay carte yëpp sama benn yaay dama koy gërëm euh, ci ci ci bu may tëj moo ma woo jënd carte bloc yëpp. léegi léegi léegi ci bunt bi lañ woo cag cag bi livreur bi géeki jox ko ko mu jënd carte bolo yi. macha allah. chaque samedi euh, yaa ngi fële nga xam ni moom mooy. Euh, sa boîte boobu five chaque vendredi xam nga da nga doon toog sa kër rek naan ataaya. donc entre nous chaque vendredi. yow bëgg ah, ah. waaw yow ah. rek yow bëgg rek yow bëgg rek yow li tax nga bëgg mooy g bi di jóg fii <laughs> eh, eh, te bi def tent bi jàpp waaw waaw bu leen ma yàqal eh, <laughs> fi mu jëm a baax fi mu jëm fi nga jëm oh, ban tas amoo micro tas amoo micro tas mais Sidi euh, mais Sidi wax dëgg fa yàlla bëgg naa nga wax ñu lan moo ñuy xaar vendredi wax nga ñu son bi nga xam ne mooy surprise Youssou lañ ci rendre hommage me Sidi ak ban xeetu ambiance. mais yow ñëw nga. Ah. déjà ñëw nga faay. Eh. Eh. ñëw nga faay ma yan lu eh, métti tegal la tegal boo xam ne. barke sëñ mm-hmm. bi am na benn vidéo bi boo xam ni. ah <laughs> am na benn vidéo bi doon circulé boo xam ne da ngaa xoole ba ngang <laughs> li nga doon xool nag moom li nga doon xool lañ nar a def fii waaw. ba pare eh, eh, eh, ba pare uh-huh. xam nga côté bii dañu ma bëgg te mosaguma fi tëgg. ay ñaari tali benn tali Médina Biscuiterie Santéteri xam nga euh, Sacré Cœur Ouest Foire Biscuiterie Centenaire grande Dakar. xam nga ba Liberté 6 côté bi dañu maa bëgg te mosaguma fi ñëw donc maa ngi leen di woo bu baax a baax surtout waa Grand Dakar ak ñaari tali benn tali HLM Medina biscuiterie boulangerie zone nañu ñëw te xam ne samedi dina bëri surprise trop Aba. ayca mu ngi noonu donc yéen laay waxal yéen ñi seetaan TFM bis ngeen xoolee ni TFM dañoo jël antenne bi ñun am nañ beneen télé SSP TV ngeen di dem ci YouTube bi daal ñu fay jàpp ñu yeggali ak yéen li nga xam ni mooy seetu Sénégal ñun moom euh, fépp la ñu nekk macha allah te foo ci dem rek fekk ni foofoo gën a dox léegi léegi dañuy yeggali ak yéen parce que am nañ invité boo xam ni moom tamit mu ngi ci salle bi toog ñu war ak yéen euh, ànd ak Sidi tey Sidi booy woote euh, ci àjjuma ji ma am loo metti lool nag

Eh. mais toj nii rek. avance avance deuxième Kaolack. <laughs> Euh, waa Kaolack ñu ngi ñuy xaar Mao Cissé. samedi 5 novembre à Kaolack Nous ne fan la cœur de ville de Kaolack waaw bir cœur de ville de Kaolack gaaw leen gaaw jënd seen ay ticket ci 77 655 51 80 ou 77 939 69 72 entrée simple 2000 VIP 5000 ak Abba Show ñëppay reetaan. ayca Abba Show boobu euh, xew ce samedi donc nous connaissons ñëpp xaar gis ngeen programme bi nga xam ni moom moo ci nar am yëpp dañuy dem ci xaadim temps bu ko defee ambiance tout ñëwaat waxtaan ak Sidi Diop.

Aba day nag dama kontaan xam nga lu ko waral damaa ñëw fekk la nga xam ni da ngay dikkale te dikkale c'est pas dikkale dikkale dikkale jikko ju doy tey changé Aba xanaa kii du moom soppeeku jikko ju doy na siri mami mami yow la bëgg yow la bëgg yow la dan ko koo yàllax yow ma ñëw may nuyu nag Sidi Diop sama xarit ki nga xamante ne maag yow ñoo bokk géejawaay yow foo pikiroo ma lekk doom yi du ma ko naan barke Serigne Saliou Mbacke fu mu pikiroo damay lekk doom yi xam nga lu tax dañoo bokk géejawaay te géejawaay benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mu nekk nag ku mën li muy def di sama waay nag di sama xarit waaye nag seytaane waxut dëgg waaye yàq dam xel waaye yàlla na jàmm yàgg yaay booy ma leen nuyu non dëgg neexul maa leen nuyu yéen ñëpp si di léegi nag dañuy baara wala fu ngeen bëgg ñu dem yéen abaa fu ñu baara mbay wala mi ngi ñaaw de ma noppi te day gën a ñaaw léegi sax abaa réew ñu nekk dara du fi dara rien n'est rien bu naree ñaaw na ñaaw waaye mi ngi waaj a neex nag na ba nopp tos